Touba ca kanam commission sociale ni mu ko baaxoo amalee at mu jot muy saytu daara yi nekkee ci Touba jël ci ab lim taxaw leen ci ay jumtukaay loolu bokkoon ci wàccaayu màggaluk 1445 ginnaaw gàddaay gi di atum 2023 muy social safar ñu jëloon lu toll ci téeméeri daara ak ñaar fukk yóbbul leen ay basang ngir ndongo yi bañ ci toog ci suuf lépp ngir sàmm seen wér yaram liggéey boobu nag mbokki jullit yi ñoo ci joxe seeni alal ngir lool yi mën a sotti waaye ki ci jiitu mooy Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides nga xam ne joxe ne lu toll ci juróom benn fukki basang ni baaxoo defee ci Touba ca kanam daaray alxuraan yooyu nag at mu jot ab list lañ koy def képp ku ci bëgg dangay dem ci siège social bu Touba ci kanam nekkee ci Touba xayra nga bindu fa lenn ci sëriñ daara yi nag sant nañ bu baax commission sociale bu Touba ca kanam ci fii mu leen féetee di leen taxawu saasu ne. waaw ah, ba sax yi dañoo dégg ni Touba ca kanam moom maam mi ngi joxe maanaam ay ay ndimbal yoo xam ne da koy dimbale sëriñ daara yi. léegi nag ñu xam ni maanaam loolu yelloo nañ ko moo taxoon ñu ñëwoon ba bindu ci at yii yëpp nag ñi ñu koy jox duñu ci dimbali bu baax a baax. biñ déggee loolu nag si leen jóg li lijjanti ba am koo xam ni mi ngi bokk si Touba sa kanam ñuy wax ak moom nag la ñu xamal ni fi ngay jaar mooy da ngay dem sa bi sàngam bu jotee nga dem si waxtu sàngam boo demee nga wax sa bëgg-bëgg su ko defee ñoom daan la laaj bind sa numéro ak sa tur ak yëpp waxtoo jotee ñu wala nga ñëw jël si ko. mi ngi ñuy dimbalee ci leneen lu dul basang yi tamit mi ngi ñu ciy dimbali waaw même lu mel ni mbaar yeeg lamp yeeg lépp mi ngi ñu ciy dimbali. même même dund gi bu dee ceeb bu dee weeru koor ceeb ak suukar ak lépp mi ngi ci dimbali kon nag tubaa ci kanam ñi ngi ñaan suñu borom jëmal leen ca kanam ci doole Serigne Touba. ñu ci téeméeri daara ak ñaar fukk jot nañ leen a séddale lu toll ci juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukki basang ñu xayma ko ci koppar lu toll ci juróom-ñetti millions ak juróom-ñeent fukki junni yu manqué tuuti mu 8 millions 448 mille francs CFA nag lenn la rek ci li commission sociale bu Touba ci kanam di amal ci dëkk bu sell bi di Touba ñëw leen gaaw ànd ak moom jaamu yàlla ci jaami yàlla yi. مصر